إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonent yàlla muhammad mooy ndawam bi yónni woon ci ñun kenn warul jaamoo yàlla lu dul la yonent booy bee jàngale ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla jalla waala di fàttali it ni sunu xutbab tey bi mi ngi jëm ci fàttali nit ñi lan mooy importance su fu ñu toll di ñaan yàlla mbokk nañu xam ne ñaan yàlla day yonent bi alayhi salaam dani ñaan moom mooy ak jaamu jaamu yàlla yépp daanaka ñaan la ñaan yépp jaamu yàlla la suñu borom subhanahu wa taala mu ni woo leen ma ngeen sellalal ma sama diine ji fadullaha muxlisina lahu diin kon ndikate yoote diine yàlla ji bokk na la ca gën a am solo mooy la nga xam ne mooy ñaan mooy diine la looloo tax ba jaam bi heure boo jógee di ñaan keneen ku dul yàlla yaa ngi koy jaamu suñu borom mu ne képp kuy woo beneen yàlla bu dul man amul lay ca la muy def allaaxira man maa koy réglé ca texe du ñeel mukk ab yéeféer képp koo xam ne jàq nga sa xel na yar ci keneen ku dul yàlla suñu borom nee na yéeféer nga te yowmal qiyaama man may ka nga xam ne ma lay atte loolu bokk bokk ci shirk yi gën a màgg doonte ne lu tasaaroo la lool ci suñ jamonoy tey mooy xettilikoo ci ay nit di ñaanal ay nit au lieu nga ñaanal leen yàlla nga leen bàyyi naa la ak sañ diw yàlla na sañ diw taxaw say mbir yàlla na la sañ diw nangam sañ diw nangam mbokk loolu bakkaar bu mag la buy génne doomu aadama ci diine lislaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi moom lépp sañ lépp am yërmaande ci lépp moo wax woo leen ma ud'uuni astajib lakum lu ngeen soxla rek woo leen ma lu ngeen ma woo danaa leen wuyu ñi nga xam ne dañuy rëy rëyloo di ma bañ a woo di woo keneen ñoom day daan dugg sawara ànd ak toroxtaa nga ca kenn na du leen fexette li bokk jullit yaa ngi nii di ñaan yàlla foo mën a toll ci waxtu bu mën a nekk doonte ne ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana gën a wuy ab jaamam ci ay jamono jamono yooyee mooy lan mooy ba ca jiitu heure boo nekkee ci jamonoy lor ndax ci jamonoy lor la nit ñi di gën a sàkkoo ku leen dimbali bokkaale giit fu la ëppee looloo tax suñu borom ne waaw ana koy xettali aju loru bu ko woowee di teggi ay lorom mbokk kooku du keneen ku dul yàlla heure boo jaaxlee wala nga jàq wala nga tiisu woo keneen ku dul yàlla teg nga sa bopp musiba bu gën a garaaw ndax yàlla rek mooy teggiwaate mbir yi loolu moo tax ba yéeféer yi la seen diina daan yàqu yàqu yàqu heure bu ñu masaan dem ba mu ne këtt na jonn njàqare bi wër leen fu nekk dañu daan xam ni yàlla rekk fi sës mi nga noonu comme ni ko wolof di waxee yàlla rekk fi sës su ko defee dañ daan fàtte lépp lu ñu daan bokkaale ci du yàlla commencé di woo yàlla yi kese donte ne ne am nañu suñu benn maam bokk na ci ay woyam mu ne diine ji woon day mu ne kéeféer ga woon day moo tane diine tey ji ay ci ay côté bokk ca mooy yéeféer yi bu njëkk bu masaan ñàng ñu jàq yàlla kese la ñuy woo mu ne jamono ji ñuy dund nag da ngay gis jullit ñi nekk ci tiis bu rëy njàqare yu rëy catastrophe yu rëy war leen fu nekk ñu fàtte seen borom kee naan yaa cheikh diw yaa sëriñ diw yaa walli yu diw yaa nangam diw riir jëm ca xabru ya riir jëm ca ay nit ñoo xam ne nii moomuluñu seen bopp njëriñ wala lor loolee mbokk da ngay gis ne yéeféer yu jëkk ya sax ñu leen tane ñenn ñi topp tafsir yi bokk na lu ñeen ci masoon a wax la nga xam ne da nga ko fekk ci yenn tafsir lu mel ne ay manaar ak ñeneen mooy benn ci ay nit ñu jóge woon lenn ci dëkki arab yi jëm Makka di aji ji bañ demee ba ca digg géej ga ngelaw li rijji seen bata bi di jayyi jayyi di waaju suux ñii jóg yaa cheikh diw yaa cheikh diw benn góorug arab jóg taxaw daa dina yaa allah labalal bata bi ñoom ñépp ñu nappi wëlbati ko di ko xool mu ne leen yéen yéeféer yi démb yi sax ñu leen tane suñ borom yàlla wax nañu aay yu dul jeex ci alquran ida massakumu durr fi lbahri dalla man tad'uuna illa iyaah yéen yéeféer yi heure bu lor dalee seen kaw ngeen fàtte lépp lu dul yàlla amma yéen julit ñi nekk ci yoonoo aji makka natt bii dal ñu xalaatu leen li ngeen di woo lu dul cheikh abdul qadir cheikh nangam diw cheikh nangam diw mbokk loolee da ngay gis ni ay mbir la yoo xamee ne nii lu bari tey ci ay julit yàlla nattoo na leen ko waaye mbokk gannaaw ba xamal ni suñu borom yàlla day mooy borom yërmande ci heure boo nekk ci jafe-jafe da lay yërëm loolu tax boo feebaree nga la way sa ordonnance numéro un sa ah médecin numéro un na nekk sa borom jalla wa ala moom mi nga xam ne lor ci ndigalam lay tege kenn mënu koo teggi ku dul moom nga la way del ñaan yàlla subhanahu wa taala yow mi nekk ci tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day nangu say ñaan mi ngi noonu yow mi nga xam ne dañ laa tooñ sa xol bi tàng jër ngir tiis ba nga àndal yàlla subhanahu wa taala day nangu say ñaan moytu leen ñaanu ko ñu tooñ waaye itamit xamal ni way jur yàlla day nangu ñaanam ci ak njabootam nga la waaye del ñaanal sa njaboot yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira lu ñu tàngal tàngal sa xol moytul di rëbb sa njaboot wala di leen ñaanal musiba ci ñaan yi gën a gaaw a nangu ca la bokk loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax donte ni nii mbokk suñu yonent alayhi salaatu wasalaam it daanañu wax ne jaam bi fi mu gën a jegee boroomam mooy fi mu sujuutee kenn ci yenn heure bu sujuutee nay baril di ñaan yàlla subhanahu wa taala loolu yiwu àdduna la ak yiwu allaaxira la bokk na ca loolu yi tamit mbokk la nga xam ne mooy guddi gi bi waaj a jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ demee ba ceeru guddi gi des jamono ji presque mën nañ wax ay deux heures du matin suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana ñëw di woo jaam yi ay yéen samay jaam ana ku may woo ma wuyu ko ay yéen samay jaam ku may jéggalu ma jéggal ko ay yéen samay jaam ku may ñaan ma may ko ba baa fajar di jot na am suñu borom waxtu woo ko ñaani mu wuyu la mu may la waaye nag ki nga ñëw ñaan ko bokkul ak ki ne la kaay ma may la mi ngi noonu bokkul abadan suñu borom yàlla nag heure njël danaan jaam yi jóg leen ñaan leen ma may leen su ko defee looloo tax yonent yàlla yanquuba ba doomam yi defee musiba bañ def te yuusufa bi ñëwee na ko ay suñu bàyyi jéggalul ñu suñu bàkkaar mu ne naam sa astaghfiru lakum rabbi danaa leen jéggalul ñu ne dafay bàyyi ba njël ndax waxtu woowu moo gën ci waxtu wu ñuy jéggalu waaye mbokk bokk na ci waxtu yi waxtu wi ñu toll mooy bisu aljuma mbokk bi su àjjuma lépp bi su ñaan la waaye rawatina nag suñu borom defal nañu ci benn waxtu woo xam ne lu ko jullit ñaan dana ko ko may waxtu woo wi ixtilaaf am na ca soo defoon àjjuma yépp muy waxtu ñaan incha allah da nga dajeeg moom donte ne yaakaar ba ci ëpp mi ngi nekk ci gannaaw tàkkusaan fi ñu julee tàkkusaan ba baa ñuy julli timis ay yéen mbokk jullit ñi ñi gënoon a jege yàlla ñi gënoon ne yey ñu leen di ñaan bu doon am ne keneen ku ñuy ñaan ci lu yàlla mooy yonenti yàlla yi waaye mbokk nañu ci yàlla nettali ci alxuraan ku nekk ci ñun wax nañu ñaan gëm ko nangul yonenti yàlla nuuxa nga ne ba muy ñaan ci tiisam ba fastajabna lahu fa najjaynaahu wa ahlahu min al min al karb yonenti yàlla ibrahima nga ne ñaan yi mu ñaan ci alxuraan kenn mënu koo takk suñu borom yàlla wuyu ko yonent yàlla isa ma nga nele yonent yàlla muusa ma nga nele keroog ba mu toogee ca ker ga tumuranke dawe biir Égypte dox dox ba biir Jordan yi nekk ku tumuranke ma nga dem wiiru ca garab ga naan rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir ay yàlla day fi ma toll loo ma yónnee ci xéewal soxla naa ko mooy tumuranke ne amul dara suñu borom yónnee ko soxna soo xam ne moo mujj nekk ka nga xam ne moo ko yóbbu kër baayam baayam may ko soxna sa mujj faa nekk ak sécurité lii lépp mbokk borom bi bu ñu koy won mooy yonent yi tedd yooyee dañ daan woo yàlla ci lu nekk innahum kaanu yusaari'uuna fi lxayraat wa yad'uunana rahaban wa rahaba wa kaanu lana xaashiin yonent yàllaa ngi nii suñu borom nee na dañ daan jëkkante ci aw yiw jaamu yàlla yi leen yàlla santoon yépp ñu def ko waaye dañ caa boole nag di ñaan yàlla fu ñu toll rëxëbaa ci lépp la nga xam ne dañ koo xemmem ci àdduna ak àllaaxira wa rëxëbaa ànd ak tiit la nga xam ne mooy mbëggalum borom bi jalla wa ala borom bi nee ne dañoo nekkoon di ma torox loolu loolu it muy wañe ne mbokk ñaan goo gis ab lettre la bu soxla timbre timbre ba mooy nga wuy ji sa boroom suñu borom mu ne ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshidun borom bi nee na man day samay jaam mu lay laaj man ko jege la sama jaam bu ma woo danaa ko wuyu waaye nag yéen tamit wuyu si leen ma wuyu si leen seen boroom ngeen gëm seen boroom mbokk lii de bu ngeen ko defee su ngeen woo yàlla yàlla wuyu leen mbokk ñaan googee dana séddili ko ci ay wàll na doon ñaan nga day doon ñaanu tagg borom bi jalla wa ala loolu rek doy na ñaan moo tax yonent bi alayhi salaam daan wax naan ñaan gi gën gi doomu aadama di ñaan li gën a baax ci li ma wax maag yonent yi jiitu yépp mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy ñaan gi gën et pourtant doo ci gis ak ñaan waaye lan lay firi kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla moom dong nga amul benn bokkaale nguur gépp moo ko moom sant yëpp moo ko moom ay kon xiiwal fu mu mën a nekk yàllaa ko fa def ca mooy am kàttan ci lépp ki nangu lii ñaan na yàlla subhanahu wa taala ngir yàlla sàmmal ko ay xéewalam yàlla yokk ko ndax mi ngi saxal ni mboolem xéewal ci yàlla la jógee loolu moo tax ba mbokk fatiha siddili ko ci ñaari côté mooy ñaanuk tagg borom bi subhanahu wa taala ak ñaanuk laaj sa aaju heure booy commencé di tagg sa borom alhamdulilahi rabbil alamin borom bi ne malaaka yi sama jaam bi day mi ngi doon koo xam ne mi ngi may sant arrahmanir rahim sama jaam bi day mi ngi may ta mi ngi may tagg maliki yawmi din sama jaam bi day mi ngi may màggal gannaaw ba nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ni lii maag sama jaam bi ñoo ko séq nga doog a ñaan nag ñaan gi gën ca mooy ihdina siratal mustaqim yàlla teg ñu ca la nga xam ne mooy yoon bu jub ba lii mbokk mooy sa borom saxal di ko toroxlul di ko ñaan borom bi subhanahu wa taala mu ne ya ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyul hamid ay yéen nit ñi da ngeen a soxlaal yàlla ci lépp mi ngi noonu fii ñu toog nii rek mbokk suñu xol yi kan moo koy tëgg suñu système sa deret bi kan moo koy doxal la nga xam ne mooy suñu biir yaram ku koy doxal noonu it la ñuy la ñuy yàlla defal dara yombul lu dul la yàlla yombal ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax dee leen ñaan yàlla ba ñaan ko sax buum gi ngeen di takk seen dàll ba ñaan ko sax xorom mbokk lu yàlla yombal rek mooy lu yomb lu yàlla yombalul du yomb abadan kon lépp loo xam ne soxla nga ko ngallaawaay dee ko ñaan sa borom yàlla subhanahu wa taala borom boobu mbokk da ngay gis ne dañ koy ñaan ci ay turam ak i melokaanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay yàlla maa ngi lay ñaan ci bépp tur boo tudde sa bopp wala nga wàcce ko sa téere wala nga jàngal ko kenn ci say jaam wala nga denc ko ci xam-xam bi nekk ci yow daal di koy ñaan la nga xam ne moom la koy ñaan ngallaawaay da ngay jéggalu waxal suñu borom muy alxafuur al tawaab da ngay bëgg yërmaande sa borom mooy arrahman mooy arrahim da ngay bëgg wërsëg sa borom mooy alwahab mooy arrazaq lépp loo soxla nga la waay ñaanal yàlla ci loole nga la waay yéen it bu leen fàtte diine lislaam moo diine dimbili dimbilente ca la gën ci li ngeen di dimbilente bokk na ca ñaan mbokk julit dee leen ñaanal seen bopp di ñaanal seen njaboot waaye di ñaanal seen mbokk julit ñaanal sa mbokk julit balu teng sa la boo dóor ci miir bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure bu jaam bi nekkee di ñaanal mbokk julitam ci foo xam ne yëgu ko suñu borom dana ko yónnee malaaka malaaka bi ne amiin yow day sa ñaan gi nangu nañ ko ca yàlla dana la jagleel lu mel ni li nga ko ñaanal kon loolee ñu bàyyi ko xel bu baax rawatina ñi nga xam ne dañ ñoo jiitu lay di mbokk yi ak xarit yi ak wëllëre yi ñu doon àndal di jaamu yàlla ngalawaay bu leen leen fàtte daa leen ñaanal fu ñu toll amuñu lenn loo xam ne gën naa nekk njëriñ ñeel leen lu mel ne la nga xam ne mooy ñaan yi leen di ñaanal ca nga la waay yow aji ñaan ji bégal yàlla du neenal ab jaam bu ko ñaan imma ñaan gi su borom yàlla defal la xéewal wala mu defal la sax lu ko gën wala boog yàlla teg di la lor boo xamee ne nii moo gën a garaaw téeméer yoon la nga bëggoon ñaan ci ñaan yàlla fegal la lor bu tol noonee nga mucc ci ay accident mucc ci ay njàqare mucc ci ay tolof-tolof te sax musoo ñaan yàlla loole la dàqati nag mooy yàlla dencal la ñaan nga ba yowmal qiyaama amul benn ñaan boo naan ya allah ñaan ko yàlla loolee kër la oto la soxna la doom la lum mën a doon ci diplôme ak lum mën a doon nga ñaan ko yàlla yàlla wuyu wula ca lu dul wuyu na la ci lu gën loolu yow nag yaa xamul loolu tax borom xam-xam yu jëkk ya dañ daan wax ñun day ñaan gi nanguwul moo ñu gënal ñaan ga nangu ndax xam nañu suñu borom mooy arhamar rahimin kon buñ ko ñaanee mu may ñu loolu suñu bànneex la waaye la nga xam ne mayuñu ko wóor nañu ne dencal nañu lu gën loolee galla waay jurit melal noonu lépp loo ñaan yàlla wuyuwul rek xamal ne yàlla dencal na la loo xam ne moo gën loolee imma ci àdduna wala imma ci àllaaxira lii moo tax ba mbokk jurit foo mën a toll del ñaan yàlla ah ci say dugg ci say génn ci sa lekk ci sa naan ci sa soxla bu mu mën a doon ci lépp loo xam ne yaakaar nga ko lépp loo xam ne ragal nga ko sa làmmiñ bi bu mu deñ di ñaan yàlla ñaanuk làmmiñ sa xol bi bu mu deñ di toroxlu ci kanamu borom bi yëg na ko yàlla yow yaay alxani yaay ki woom la yaay ki man man maag keneen ku dul man yépp ñun ñooy ki lott aajowoo jëm ci yow lii day mbokk juri da ngay gis ni képp koo xam ne nii saxoo na ko texe na àdduna texe na àllaaxira donte na mbokk ñaan yi ñuy ñaan ci lislaam day bari na waaye maa ngi lay tënkal benn boo xam ne moom la yonent bi ëppoon ci li muy ñaan mi ngi noonu ko mel ne anas ibnu malik képp ko ko masaan ñaan loo daawul paase loolu mooy lan rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annaar ey yàlla yàlla na ñu may ci àdduna bi aw yiw may ñu àllaaxira yiw te musal ñu ci sawara képp koo xam ne yàlla nangul na la ñaan googee xamal ne mboole mi xiiwulu àdduna ak àllaaxira daje na ci yow allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil lazina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbi la tad'a lana zanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين